waa Oser Média information bi leen di jox mooy arbitre bi monsieur Atcho ki nga ne si un gabonais moo doon arbitré match Sénégal Côte d'Ivoire waa waa nag mujj nañ jël décision boo xamante ne dañ ko mujj suspendre ak VAR bi nga xamante ne yëpp ñoo nekkoon ci match boobu ndax gis nañ ni moom euh, nga xamante ne mooy les normes les normes yi nga xamante ne daf ko def te nee nañ dañ ko def li nga xamante ne mooy corruption corruption nag boo ko déggee mooy dañ koo ger dañu yëkkati alal jox ko pour nga xamante moom mu mën a euh, mooy euh, bañ def li nga xamante ne moom la war a def correctement maanaam jaarale mbiri ci yoon yoon parce que ñu bëri nee nañ Sadio Mané gaañ boobu mu njëkk a gaañ jaune bi ah, jox Sadio Mané carton rouge loolu moom carton rouge bu leer la woon Ismaïla Sarr it am na fa penalty Sadio Mané aussi am na fa penalty donc nee nañ daal gis nañ ni daal euh, penalty bi nga xamante ne aussi Côte d'Ivoire dugal nañ ko euh, bi nga xamante ni Pepe moo doon dem noonu loolu mu def contact ak Edouard Mendy hors la bu ñu demoon VAR dellu woon VAR dañuy gis ni action bi hors-jeu la mais ñoom jéemu ñu dem VAR jéemu ñu def dara dañoo dem tirer penalty rek pour lan ngir éliminer Sénégal léegi nag ba Sénégal defee nag appel nag teg loolu ñu wane ne carrément dafa am corruption bu ñoom Krépin Diatta ni ko doon waxee finalement nag si lañ dem nag waa CAF def seen enquête finalement mujj jox li nga xamante ni mooy waa Sénégal dëgg waaye lii nga xamante daal mooy information bi ñu mën a daal mooy entraîneur Gabon bi moom monsieur Arsio moom aj nañ ko ñii ñu naan